di leen baal àq di fàttaliku di fàttalee li ñu fi indi te bàyyi lu ñu mu yàlla suñu borom subhanahu wa mu mel ni tey jii nag dañuy jël benn bunt boo xam ni ci la ñu fas yéenee tënk suñu waxtaan muy wird wird nag nekk lu am solo ci lislaam ndax ku ne xam na sëriñu tasawuf si xeetu yarin la woo xamante ni moom la ñuy seeni taalibe sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu def ci bunt bu am solo ci Masaalikul Jinaan te jii sunu tomb bi ñu fas yéene waxtaane ci loolu la jëm sëriñ bi wax ni fas lul lii am dog la fil wird ci wird wér bi nag bu ñu ko waxee li ñu ko gën a miine mooy lu mel ni yor sa kurus di tudd yàlla wala lu mel ni jàng alxuraan ak itam euh, maanaam li nga xam ne suñu tariixa yi dañ koy faral di jox seeni taalibe loolu lañ ko gën a miin waaye baatu bi moom bu ñu ko waxee mooy lépp loo xam ne du farata ci yow nga fab ko farataal ko jëmm wutal ko waxtu boo xam ni ci koy tàmbalee am waxtu mu yam loolee la ñuy tuddee wér loolu nag mën na doon jàng mën naa doon julli mën naa doon woor mën naa doon doon yàlla mu ne am maay saa jaxital daal ndéem réere nga nag sànnal wér di mbirum wér na faalam xamal bi annahu naka moom azimul xas bi aji mag bi maanaam mu ne su fekkee da ngaa réeree mbirum wér xamal ne lu am solo ci diine la surtout sëriñu tasawuf yi nga xam ne moom nañu ñuy yare seeni taalibe mu ne ma waxoo place am nag fi sarxe ci yoon ñun ajal yi ma waa ñu xura bi bokk na ci gën jaam mag bi place jaamu yàlla mu ne su fekkee da ngaa réeree mbirum wér xamal ne lu am solo ci diine la bokk na ci place yi gën a màgg ci place yi jaamu yàlla waxadduhu dëgg dëgg wérd hinda sawil ifaada fas borom jën ga say um lëf lay doon mu rattaban lu ñu doftale min al ibaada ci jaamu ci waxtu ci waxtoon kon daal dëgg dëgg wérd mooy loo xam ni da nga koo toftale sa ginnaaw boo defee say farata ba noppi su ma si xaasoo topp ak xaroom ataa dikk na minal muróodi jukkee ci root filmiyaay ci ndox ya yàppataa yow col bat bi nag ci luxa mi ngi jóge ci warada yaridu waroodal mooy dem rooti am ndox ana rooti am ndox ak wird lan lañ jote mu ni fa kullu wirdin wépp wird yóori dana rotal al murida taaliba ba li xadratillaahi ñeel pëyëb yàlla ba yi yahidaati lu jeng xam nga ni am ndox boo rootee root ga moo lay tax am ndox kon nag booy bëgg ak sa boroom mooy na nga wit wurti woo xam ni moom ngay saxal foofu la jële baat bi mu ni sawaawun wa yemoo la nag intama wird wa askano na ilal jeylaan yi jële ko ci Cheikh Abdul Xaadir al jeylaan yi awintama wala mu askanoo li ahmad at tijjaani jële ko ci abil habbaas ahmad at tijjaani aw li siwaahuma wala mu jukke mu tukkee ci keneen ku dul ñoom ñaar ñii minal aqtaabi ci kilifa yi is ngir kulluhum képp ci ñoom xat-xan ci lu dog xala sawaab ci jub la nekk mu ni kenn ku nekk ci ñoom ñii moo xam wird la woo xam ne da nga koo jële ko ci Cheikh Ahmad Tidiane wala nga jële ko ci abil habbaas at yi wala nga jëlee ko ci imaamu Saadali wala euh, wirdu xaadir yi ñoom ñëpp Cheikh Abdou Xaadir Jilaani yi ñoom ñëpp xamal ni àgg na ci yàlla kenn ku nekk ci ñoom day nekk ci jub di woo ay taalibeem jëmale ci jub kon nag lam lay jox soo ko toppee danaan àggale fukk jub di àgg wird nag sëriñ bi ci boppam jaar na ci wirdu xaadiriya jaar na ci wirdu tijjaaniya jaar na itam ci wirdu saazali waaye dafa wax ni bi mu demee ci géej gi suñ borom subhaanahu wa taala mboolem xam-xam yu am njariñ yi muy alxuraan ak xadiis ak xeeti wirdu yu baax yépp suñ boroom da ko dénk alxuraan xadiis mboolem xeeti wirdu yi nga xam ni ay sëriñam dañu koo joxoon bi mu laataa nekk ci géej suñu borom daf ko koo joxalaat boppam bi mu nekkee ci biir géej gi doo koo jox nag bi mu ñëwee gànnaar wirdul maquus minallaahi bi waasitati rasulillah moo tax sëriñ bi daa def boo ñëwee su fekkee da ngaa yor wirdu xaadir wala wu tijaan wala wu saasali da la koy bàyyee danaan la ñëwal ma defal la ci noo ko mën a jariñoo daan la koy joxalaat boppam su fekkente ni mën nga caa boole wirdu boppam yi mun la mënta nga leen a boole ndax boole yaari wirdu loolu noorun xalaa nooray ni la leer ci kaw leer la bu yàq dara su fekkente ni nag mënoon na boole wala fekk yoro woon wenn wirdu moo doog laa jox nag wérdu boppam la nga gis ni kon noonu la moo tax sëriñ bii di wax ni fa kulluhum képp ci ñoom yaddoxoo day woo al muri taaliba ba ilaa taati rabbil xarsi jëme ci topp borom xaras xaysuma jalaa fu mu feeñe bil istiqaamati ànd ak njub mu ni xamal ne wérd yi nag yépp a baax woo ci saxal dana la àggale fu ko jub di àgg su fekkente ni jub nga ndax ñoom ñëpp ñoom kenn ku nekk ci ñoom day nekk ci njub di woo ay taalibeem jëmale ci njub sëriñ soosu muy sëriñub xaadir la wala tijjaan la wala saasali la bu ci ŋàññi kenn bu ci reyee kenn bu ci weddi kenn ndax weddi wàlliyu boo ko defee mel na ni weddi nga wàlliyu yépp nii nga xamee ni ab yonantu benn boo ci weddi àtteb ku weddi yonantu yépp lañ jox ku weddi wenn wàllu itam xamal ne weneen wa nga topp itam doo ko mën a jariñ kon nag ni ngay def mooy kala yàlla booleel te ñoom ñëpp lu baax la ñuy digle fexeel ba lam la digal nga sax ja lam la tere nga bàyyi ko te doyloo ko ndax dafa am genn kilifa boo xam ni dañ koo mas a dégg muy waxtaan ci sëriñ bi di ko tagg tagg yoo xam ni tagg ya jéggi na dayoo te fekk moom bokkul ci yoon wi ñu ne ko waa yow de nii ngay tagge sëriñ bi ana bokk ci yoonam yi mu ni leen sëriñ bi wóotewul tariixa wóotewul tariixa bu woote woon tariixa ñépp koy wus neex na waaye sëriñ bi bokk ci yoonam yi loolu tànn suñu borom la du jàggi nag ku ci bëgg a bokk bokk ci comme ci boole moo ci bokk ku ci wëtt bokk bokk ci bokk ni ma la ko mën misaal daal mooy xam nga ni da yor sa soxna ci sa biir kër waaye saa soo génn ci mbedd mi gis ku la dàqal fopp sa soxna waaye du tax nga bàyyi sa soxna dem takki kookee ndax dangay xam ne sa soxna la yàlla sédde waaye bokk ci yoon wi itam nag du doon ay waxi kese doon ay waxi kese ndax xam nga ni sax ab entreprise soo demee bëgg ñu embauché la borom entreprise ba dana naan man kat sama entreprise bii nangam laa fi nangu nangam laa fi bañ kon soo fi bëggee toog continuer liggéey di nga sàmmanteeg la nga xam ni moom la digle la mu tere nga bàyyi ko te bañ nax sa bopp nax sa bopp weesuwul ànd ak nit ni ko yow laa yaakaar àdduna ak àllaaxira lam lay digal doote def dara lam lay tere doote bàyyi dara loolu mooy nax sa bopp mu ni waas loxo cosaan la nag al wax yu wax yu lay doon awi ilham wala yakkeewal yaxusuhoo dana ko jagale assalaamu yàlla muy aji mucc ci ayib bi ahli te ña ko yeewu mu ni nag foo gis wird xamal ni wax yu lay doon ñu ngi ko tibbe ci alxuraan wala wax yent bi salaa salaam mu ne nag in kaane ndem nekk na wax yent bi wax wax yu fa huwa moom li nabi yi ñenn ab yonent su fekkente ni wax yu la moom ab yonent moo koy am aw kaana wala mu nekk ilhaaman di yetteewal falil wali ñenn wali mu ne su fekkee ne wax yu la xamal ne ab yonent moo koy am su fekkee yëkkee wàll nag xamal ni wàllu yu moo koy am kon nee na la wird woo fi mën a gis ñu ngi ko tibbe ci alxuraan wala ñu tibbe ko ci waxi yent bi sallallahu alayhi wasallam baat yi suñ bëgg itam maxanama boo ko toppee du mën a génn yaar yooyu mu ni nag su fekkente ni nag wax yu la kon ci yonent lay doon su fekkente ni ilham la nga xam ni kon ci wàllu yu lay jógoon lay doon nga gis ne kon de sëñ bi de moom suñ seetee mbiram am na ci loo xam ne boo ko xoolee ci téere yi la ko gis waaye am na ci loo xam ni neexut a gis ci téere yi xanaa da koy gëm ndax sëñ bi de wirdam yii bi mu koy dikkal gànnaar dafa wax ni al wirdul maqbuus minallaahi bi waasitati rasuulillaahi yaqasatan laa manaam wird wii day ci sama boroom la jóge jaar ci yont bi aski ci man te jaarul ci nelaw boobu maa ngi ni jar di xoole kon loolu moom mënee su ko tudde ilham te mënee su ko tudde itam wax yi ndax wax yi moom am yont kom kon loolu moom jagleeg Sëriñ Tuubaa boo xam ne moom rek moo ko am ndax itam lu waay baax baax sag mbaax mënta dëggu te jaarul ci yonant bi waaye nag mën ngaa jaar ci yont bi nag am loo xam ni mësee sunoo nekk lu ko am lu mel noonu ndax sëriñ bi kat xam nañu lim am lépp ci yont bi la jaare waaye àgg na foo xam ne kat lu mel noonu yont bi salaa sax daw ko dégg ci moom ndax yont bi daana toog jëmmi jamono wax yu daawul wàcc mu jaaxle lool balaa xam nan lay def jibril lay ñëw ci moom ni ko sa borom nee na nangam mu door a xam ni kon lii mooy digal waaye sëriñ bi day mag ñi nekk nañ ci njaareem ni daa nga ñëw laaj ko dara mu daal di xaaral ma ñu laaj ko sama borom xaaral ma ñu moom ku ne xam na ni du ilham du wax yi lu ko suñu borom jagle rek la muy nag léegi kon <coughs> in dem nekk na wax yéen di wax yi foofu moom li nabi ñel na ab yonantu aw kaana wala mu nekk ilhaman di yakkeewal falil walli ñel na walli mu ne ni bisaatuhoo laytaayu wird nag kitaabuhoo mooy téeram ba al munazzala ba di mu ñu wàccee mu farrixan ngir mu muy aji tàqalee dëgg ak wan wal asro ba al musalsala ba di buñ càlla la di ko topp ba mu àgg ci yoon mu nekkoon foo gis wird xamal ni ñu ko tibbe ci alxuraan wala ñu tibbe ko ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam baat yi suñu bokk itam maxanaama du génn wàll yu ñaar mu tam kulli wàllin yëpp wàlli nag soo tasa bu suñu borom ak mooy la abadan faw bi say liman ci mbittum xam ne arsalahoo yónne na ko alxaq yàlla mooy aju dëggu al kenn kon mu ni wàlli ne mi ngi ngoy ci mbittum ab yonant waaye wàlli fokk mu am intermédiaire moo tax sëriñ bi ni dallan yallaahu ala muhammadi waxaada nii muhammadi li samadi ba ma bëggee dem ci sama borom sama boroom daf ma ne maa gudd ba kat ma nga nee mooy Muhammad ba ma demee ca moom nag moo jàpp sama loxo yóbbu ma ba ma àgg direct xam naa àgg bu ma àgg direct nag moo tax bu ñu ko laajee dara mu ne xaar mu ñu laaj sama borom kon nee na la waliyu mu ngi ngoy ci mbiccum ab yonant mu ni euh, euh, kullu wali yëpp wali sotti sa bu suñu borom mooy la aban faw bi sayliman ci mbiccu ka nga xam ne arsala yónne ko alxaqu yàlla mooy aji dëggu al kenn mu ne famaa lépp loo xam nag yëf yi dana nekk moo gisatu nabi di moo gisatu yentu ya joosu dana dagal nag fii karaamatil wali yi nekk karaama wali lépp loo xam ne ay xar baax la feeñ ci ab wali mën na loolu mooy feeñ lépp loo xamante ni kiimtaan la goo xamante ni saat la feeñ ci ab yonantu mën naa doon même lu mel noona waaye nekk karaama feeñ ci wàllu li leen wóotale mooy bu dee yonantu bi faw wu day am moom fokk mu am bu dee wàllu yi nag moom du ko sàkku suñu boroom ci boppam mooy xamle ni kii lii mu nekk dëgg la mu feeñal ci moom xar baax yooyu ngir dëgëral ko li nga nekk ba ñu indi la ci lii ba ba ba ñu teg la lii maanaam dëgg la loolu mooy loolu mooy karaama loolu sax am naa ni dañ ko baral beneen bunt boo xam ni ndax bunt la boo xam ni suñ ci nekk euh, nekkee di ko détaillé li ñu jublu woon a waxtaane muy wérd euh, danañu rëcc ndax temps bi du ko du ko maye waaye insha allahu dinañ ci dikkaat beneen bunt boo xam ne dina dikk ci dina dikk ci diggante mu'jisaat ak karaama ak mawana ak istidraaj bi yëpp benn leen lu ci nekk dinañ ko baral waxtaanu boppam moo tax mu ni li ànd na ngir naka moom waarisoo mooy aju doon noom fal anbiyaaw yonent yi nag xujjati rabbina mooy layu suñu borom xalal xalal ko ci mbindeef yi ah, yan wattul mu ne yonent nag boo gisee suñu borom di feeñal ci moom mujisaat loolu mooy wane ni lii muy woote dëgg la ndax su fekkonte ni li muy woote du dëgg kon suñu borom du ko ci dëggal mujisaat bi mu ngi mel ni moom représenté suñu borom subhaanahu wa taala di wax ni kii kat lii mu leen di dëgg la ndax lii mu man su fekkonte ni li mu woote dëgg kon lii mu man du ko man mu ne wal awliya wàllu yu nag addilatu taxsiis yi mooy tegtali wéral ga li diini yi ñeel diinam ga wa sidix yi ak dëggam ga ak saxiix bi ak wéram kon wàllu yi moom li muy jariñ ci diina ji mooy lii nga def ba nga xamante nii euh, suñ borom mi ngi feeñal ci ay xarbaax ci moom kon loola mooy wane ni li mu nekk dëgg la ndax looy def ba gis xar baax kon war ngaa xam ne loola dëgër la mu ne fal an yi nag buñ ko waxee dëgg-dëgg mooy koo xam ni gis nañ ko mu ragal yàlla day dalul ragal yàlla gisuñu ko muy def genn moy te ndigal yépp gis nañu muy sàmmanteeg moom koo gis yooyu feeñ ci moom bu feeñalee xar baax ak bu feeñalul xar baax mën ngaa wax ni kii wàllu li nga xam ne kumpa la moom njort mooy gis koo xam ni ma ngay feeñal ay xar baax waaye yaa ngi gis nag muy def mooy yàlla yoo xam ne jaaxal na la kooku moom da war a maandu ci biram te bu ko wutal benn atte ndax ay xar baax moom du caagi nag jullit doo nga koy def catholique sax dañuy def ay xar baax borom xarum sax dañuy def xar baax kon loolu tegtalewul ni kooku wàllu mu ni fal anbiyaaw yonent yi daal taxa laa kawe na musimu mosaleef na leen wal awliyaaw wàlli yu xafisu wattoof na leen wakkuri moo te teral leen kon wàlli moom mooy koo xamante ni dañ koo musal ni ko ab yonent nag moom mooy koo xamante ni dañu wat dañ koo wattu kon kon kon daal wastarakaab bokkaale nag ñoom ñaar fii xismati rahmaani ci muccug yàlla may aji yërëme kama nasa naka leexale bii ci moom tawil anfaani waram xam ya kon wàlliyu ak ak yonent li ñuy wax xismatu daje nañ ci mooy mucc goo xamante ni yàlla muccal na leen waaye mucc gi nga xam ni moom la yàlla di muccal ab yonent moom lu mënta ñàkk la moom faaw day am ndax bu dul loolu rek kon woo day wane ne kon yoon woote googee mu doon woote ni am yoonante la du dëgg bu dee wàll yu nag moom mën naa mën naa ñàkk ndax boo mu ndimbalu yà wàll yu boo mul yàlla mën naa mooy yàlla dal di yàqu la moo tax mu ne wastaraka bokkaat nañ kon fii xismati rahmaani ci musul yàlla mi naa yéenéen kamaa nasal naka la yeexale bii ci moom sawil irfaani waroom xam yam laakin ma xismatul anbiya waaye muccuk yonent yi waajibatun aji war la bi xaq sil awliya yi ci safaanuk wàlli xansa lii maxaalu seydil muxtaar mooy waxi seydil muxtaar la fii kawkabil waqaat ci kawkabul waqaat laa tumaari bul werante ay weral waxam sidi muxtaar kunta def na téere bu ñuy wax kawkabul waqaat mooy biddiw bay tàkkaakoon nii la leerale diggante musalu bu yonantu ak musalu bu wàlli wird yi nag leer nañ la ni mu demee ba woo ci jël na nga fexe ba sàmmanteeg sart ya bokk na ca sart ya soo jëlee wird yi na koy def ginnaaw julli suba ak ginnaaw julli tàkkusaan te itam ngay saxoo julli ci mbooloo soo amul ngànt te kabaayir yi nga di ko teer sa kem kàttan te nit yàlla yi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañu yu jëfandikoo seen xam-xam nga faral di leen seeti di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom ak itam lu mu néew néew su fekkee mokkal nga alxuraan bis bu set na nga naafila ñaari isib ak genn wàll soo ko mënul la nga mën a jàng bis bu set na ko jàng loolu mooy sart yi nga xam ni ku jëfandikoo wérdul maxfuus war na koo sàmmanteel wedd bi nag sëriñ bi ci jim boppam nee na woon képp ku jébbul rek am nga ci ndigal waaye nag ginnaaw boo ci amee ndigal yi nga xam ne ñëpp ko bokk boo gisee koo xam ne yaakaar nga ci moom barke mën ngaa dem laaj ko werdu bi joxaat la ndax mag ñu baax ñi noonu lañ daan def sëriñ Saliou radiyallahu anhu daana ko joxe daana ko joxelu kon loolu mooy sart yi nga xam ne ku jëfandikoo wérdul maxfuus war ngaa sàmmanteeg moom mu ne amal la si ndaal ka nga xam ni nag ankara weddi na maqaama wirdin maqaamam am wird musta si an mbir muy aji yéej bi yi moom li kuur yi jur sibeen was diraay ak xeet ki nga xam ni nag moom dafa gis wird mi ni ah lii de amul solo ndax saxaaba yi daw ñu ko def koy wird mu di la ree ngir bañ li ngay def ak xeeb ko xamal ne boobu façon jahaale mboromul réer la kama nasala naka la yàqale bi ci moom kama nasala naka la ibnu xataawulaay al iskandari fii matnul xikam ci téere ba mu wax matnul xikam nee na koo gis muy def loola xamal dafa réer ndax la ko mooy ngëneel yu bari ya nekk ci wirdu moo ko ëmp moo tax bu gisee kuy wirdu mu di ko ree ak di ko xeeb mu ni kamaana sa naka lay xale alxalam aji siiw ja ibnu xattaaw laay al yi fii matnil xikam te téere ba mu def matnil xikam nee na koo gis muy def loolu xamal dafa réer ndax la ko upp mooy ngëneel yu bari ya moo ko upp moo tax bu gisee kuy wedd mu di ko reetaan ak di ko xeeb mu ni man koo xam ne lam yu dum soxalul say am dara minal awraade ci wird yi mu dayaxal waxtu yu ngir mu muy aji sànq ci waxtu yi xalaat tamaa di te tëbbirlu ko xamal ne falaa loxoo déddi ñeel ko yow mal jasaa bi su pay ga annaasu nit ña ilaa xaraamu ndare aw naqar wa jawan ak njàqare wa baasun ak ay xamal ni daal koo muy wax ne man daal farata rek laay def waaye wird yi yooyu awma ci soxla kooku bu ëllëgee bu ñuy fay ñi nga xam ni ñoo doon wird dara ni siiw am la am te du ko mën a am ndax day gis seen tuyaaba ñu fay leen ko mu bari lool ba bëgg ca te du ca mën a am kon nag falaa yu xaf din muy woyfal umoor a wir din mbirum wird si waa xasoo din dara kon soo xilan kuy boroomu mbañeel wa xeqdat ak soxor mu ni nag ki nga xam ne nag dafa bañ a nga xam ni moom tàyyel na ba du wird waaye bëgg na moroom mu tàyyel mu mel ni moom tax muy coow naan werdu amul solo loola soxor rekk la mooy sa xol jumb ko moo laabul ndax werdu moom xeeti yarin la yoo xam ni sëriñi tasawuf yi ñoo ko yare seeni taalibe fa kay fa yastaxiru naka lay mën a xeebe sikrallaahi tudd yàlla adaamoo mbir moom saxal na ko alfataa camsa bilaa tanaatul day tal nan la cam si mën a xeebe tur yàlla woo xam ne da koy saxal di ko def loolu nan la koy mën a febe te loolu maanaam sëriñi tasawuf yi ñoo koy yare seeni taalibe ay xeeti yar la woo xamante ni moom la ko loolu la ko la ko la ko cëm si mën a xeebe loo xamante ni boo ko xoolee tudd yàlla ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa rek moo ci nekk